ah bon donc dafa am yeneen émissaire ñiy waxtaan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba ñu toll fii du ñooñu. ñan la fu ñu jógee ku ñu doon sénégalais la ñu non sénégalais du ñu ay sénégalais. am na benn malien bu tudd Ousmane Yara. Ousmane Yara. da dafa dem toog ak Ousmane Sonko waxtaan ak moom waxtaanu xóot. Ousmane Yara boobu moo doxoon diggante makki sàll ak Ablaye Wade ci protocole bi ñuy woowee protocole Conakry li tax waxtaanam ak Ousmane Sonko aboutirul mooy Ousmane Sonko dafa jàpp ni dafa jege Macky sàll moo tax xóotalul ak moom. am na benn sénégalais bu tudd Cheikh Diba. Cheikh Diba c'est le directeur de la waaw c'est le directeur de la planification budgétaire. inspecteur des impôts et domaines la maanaam naataango Ousmane kooku moo waxtaan ak yépp ba kale lépp loolu mooy li xew ñoom gujaa bi bi ñu leen di woo dafa dem ba waxtaan wi sotti ñu war a libérer nit ñi ñu woo leen pour ñu wax ni à l'intention du public pour nit ñi xam liy xew ak liy ñëw dégg wax bi loolu mooy li nga xam ni moo am mais Macky Sall ak Ousmane Sonko waxtaan wu xoot lañ seq woo xam ne mu ngi jaar ci Cheikh Diba boobu Cheikh Diba boobu ci ab Ablaye da Diallo la jaar ba am ci Macky Sall loolu moo indi waxtaan wi ñu xóotal ko ba waxtaan wi sori na lool lool lool waxtaan woowu moo indi dafay nii ñu ñu libéré waxtaan woowu moo indi euh, Macky Sall xëy suba def rapport ñu toog ay fan dégg ñu Ousmane Sonko wax ci waxtaan woowu moo indi. moo indi voilà waxtaan woow moo indi loi d'amnistie bi ñuy waaj waxtaan woowu am na yeneen ak yeneen yu ci bokk yoo xam ne histoire dina dem ba euh, protocole du Cap Manuel dina dina gën a leer. donc ceux qui parlent après le protocole de Rebeuss le protocole de Doha mën nañu dorénavant wax inscrire ci suñu agenda euh, historique le protocole du Cap Manuel. entre Macky Sall et Ousmane Sonko. bu baax waxtaanu xóot a xóot a